waaw dafa am question yoo war a posé wala ñu bàyyi Fadam dem bàyyi Fadam mu dem après Fadam les questions c'est quoi. am na solo Aziz yaakaar naa ne internet yi am na lu ñu doon xaar ndax Aziz te li mu gën a révolté mooy balaa maa ñëw moom ci beneen côté bi mooy côté pay per bi. Mm-hmm. ndax tey jii Aziz da cee développé loo xam ne nii lu jaaxal sénégal yi ñu bari la mooy Alburax am na matériel yu mën a defee pay per am na matériel yu mën def pay-per-view tey ji structure Albourakh boobu bëggoon naa xam bu doon def pay-per-view nan lay tudd mhm. ndax phase yi ñu fi gis mooy seen affiche mhm. ñu yàgg koo def ak sénégalais yi ndax moom ndax loolu tey jii ci combat yi ñu jëm ndax moom waxtaan na ceeg waa seen affiche ci seeni combat wala combat promoteur ku bëgg mu liggéeyal la waaw waaw et puis est-ce que amal na dina leen amal njariñ par rapport ak seen avis. waaw seen avis man lan loolu laa bëgg a xam mooy sama premier point balaa maa ñëw ci deuxième conseil bi. déet balaa ngaa ñëw ñëwaat de. as ñëwal foofu ayca bismillah. bon comme li ma la wax sànq Albourakh am na plateforme digitale qui lui permet de faire du pay-per-view ça c'est clair ah je le cache mais comme li ma la wax rek àdduna mënoo def lépp y a des jeunes sénégalais qui sont là comme seen affiche. Mm-hmm. aujourd'hui même on a reçu Buzz on a discuté. mais on est en train de discuter une collaboration. si on est tombé d'accord pour mu collaborer ak Albourakh il va collaborer suñu tombé wul d'accord tam Albourakh a les de faire son propre pay-per-view il y a d'autres sollicitas aussi yoo xam ne ñeneen ñoo am des d'autres plateformes. on est en train ñuy def pay per ñoo xam ne ñi ngi fii au niveau local même au niveau international ça je le cache pas il y a des télévisions nationales yu bëgg liggéey ak Albourakh sur ces événements wala y a d'autres télévisions internationales yoo xam ni bëgg nañu liggéey ak Alburakh on est en discussion mm-hmm. ouvert on ferme pas les portes mais pour te dire vrai lépp dañ ko war a organiser dans la lutte mm-hmm. une traçabilité claire traçabilité claire mm-hmm. une comptabilité claire li ñuy def ñëpp am accès dans les plateformes mën ko contrôler mën ko contrôler mais je pense que ni aujourd'hui comme ni nga ko xamee Beuz il est là il travaille il fait excellent travail. ñu ngi koy ñaaral yàlla defal ko réussite et tout. mais def pay-per-view c'est pas exclusif kenn rek moomu ko. tey li ma la wax sànq mooy la lutte fait partie des contenus les plus suivis. au niveau national comme au niveau international. les sénégalais de la diaspora ni ñuy seetaane lamb ak ni ñu koy toppee. duñ ko toppee boo doon def benn émission politique ak émission lamb. aujourd'hui moi c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup de visibilité loolu on doit l'organiser ba aujourd'hui le producteur de spectacle comme on le dit qui est promoteur de lutte mën ci gis boppam mois je suggère à tous les promoteurs nañu am seen ay plateformes digitales je dis pas de faire PPV ah mais ñu am loo xam ne dañuy mën a sauvegarder seen ay contenus mm-hmm. parce que les contenus sont dispersés mm-hmm. ku ne moo koy utiliser amul benn protection ku mu neex utiliser ko nu la neex mais si un promoteur est bien organisé bien structuré li mu am ci produit en termes d'image aujourd'hui da ngay gis sànq rek maa ngi ci waxtaan ak buzz aujourd'hui tu vois loo xam ne aujourd'hui c'est un manque à la pour tous les promoteurs ak même yéen ñi am chaîne tu vois une émission Bantamba TV buy daw mais avant muy jeex gis ne quelqu'un ku ko dagg dugal ko sur TikTok mhm. boo demee sur TikTok tu vois que ni kooku dafay am un million de vues sur benn vidéo yow mi ko dugal sur sa chaîne YouTube tu n'as même pas cent mille personnes mhm. parce que algorithme YouTube moo gën a gaaw mhm. parce que ñi ko am seen tel loxo dañuy défilé avant ngay dugg ci biir Bantamba TV di seetaan tu le seetaan nga ko YouTube bu yàgg te borom YouTube boobu mi ngi koy dagg di ko dugal ci borom TikTok bi mhm. te TikTok ne pas numéro au Sénégal. Mm, effectivement yaa ngi koy dugal yaakaar ni ci crées du contenu mais yaa ngi yàqal Bantamba TV parce que mm. Bantamba TV. soo bàyyi woon ku soxla émission bi wala vidéo bi wala entraînement mbër bi seetaan ko sur YouTube ça sera monétisé Bantamba va gagner de l'argent via YouTube mais yaa ngi ko dugal ci sa TikTok di ko fa seetaan te TikTok n'est pas monétisé au Sénégal qui est le perdant le propriétaire du contenu mooy l'organisateur du spectacle loolu lépp nag am na ay liggéey yoo xam ne dinañ dem ba aujourd'hui ñi ngi ciy waxtaan di ci trouver ay réunion di ci def ay mbir ba nga xam ni tey dina dem ba contenu yi sax boo ko jëlee sur YouTube bu Alburaax dugal wala bu Bantamba TV dugal wala bu Lutte TV dugal wala Gaston Production dugal soo ko jëlee sur YouTube yóbbu ko sur TikTok on va couper ton compte de TikTok. Mhm. Mhm. c'est très important loolu lépp ci wàllu liggéey la parce que. da nga ciy poser question mais attends Kene Baba Kene ci biir euh, loolu ci lutte bi dafa am kuy poser question nee na pour mu bañ a sori débat bi nee na ndax ci biir làmb ji. mën nañ ci xaar a part contenu yooyu ay sponsor yoo xamante ne sponsor nekk ndax gis nañ ne am nga ay relation ak euh, ak ay entrepreneurs yoo xam ne c'est des mais bien sûr bien comme Nike Adidas il a des exemples. tout dépend de l'organisation xam nga tey li ma wax mooy la lutte dafa soxla une organisation profonde. xam nga ba pare ñu organiser wu ñun en interne mooy ñu créer du timing tey boo bëggoon jël canal ni ko kaay defal ma direct dans les combats de lut mais football xam nga ni trois heures lay commencé 17 heures lay jeex. mais boo duggee ci làmb tu commences à 14 heures ba 22 heures xamoo kañ lay jeex tant que chute amul du jeex. le c'est-à-dire la lutte n'est pas calibrée en termes de temps boo jëloon benn chaîne buy liggéey canal ngeen ko kaay bu commencé di def direct mbër bi di jéggi saaku di jéggi saaku ñu koy avertir di ko avertir mu waroon a jeex sur 10 minutes jeex 45 minutes. et le temps d'antenne c'est coûteux c'est de l'argent loolu moo waral tout le ngay gis les télévisions étrangères duñ mën a dugg ci làmb beneen bi ci des aussi les sponsors pour ñu ñëw ci làmb il faut que les promoteurs s'organisent parce que promoteur Sénégal yi li ñuy def nii c'est vingt ans derrière visibilité rek lañ lay jaay dama lay takkal banderole solo la blouson qu'est-ce qu'un sponsor gagne branding ci blouson ak ba blouson ak banderole mhm. blouson ak kenn du ko lekk kenn du ko naan le sponsor a besoin de la rentabilité je mets 100 millions dans un combat qu'est-ce que je gagne derrière parce que la visibilité du blouson et du branding c'est un nouveau produit moo ko soxla quelqu'un qui veut mën naa une représentation une pénétration dans waaw pénétration dans marché moo ko soxla mais quelqu'un qui a une marque bien assurée bien assise comme j'adore tey boo ñëwee naan ma dama lay takkal banderole wala dama lay solal blouson suba je retrouve un mécanicien qui porte dans la rue benn beneen liggéey wala koo xam ni il ne fait pas du bon boulot est-ce que c'est bon il faut que les promoteurs s'organisent mm-hmm. out des agents marketing yoo xam ni dañu xam lan mooy communication mm-hmm. bàyyi moo tax cette il des sponsors macha allah parce que dafa ñu am xam ñoo xam ne aujourd'hui ils ont fait du marketing ba pare am relation am carnet d'adresse loolu mooy tax làmb rentable la lutte est toujours rentable mais tout dépend des promoteurs yow promoteur bi boo monté benn combat face à face ngay def open press takkal banderole sol blouson loolu du may xaalis loolu man j'adore mënu ci cinq cent mille francs parce que du ma ci gis suma bopp tey da ngay woo benn promoteur ni ko sa jabar lu muy toggee sa kër mu wan la beneen dëwlin boo xam ne sa concurrent la da jël sa xaalis ñaari promoteur mos nañ toog ci kanamu bàyyi ñuy waxtaan ñun dañu bëgg may sponsoriser leen man leen nañu woo seen jabar appel vidéo seen waañ rek su ma fa gisee ko ne gendarme ma jox leen un million kenn ñi mew ci woo sa jabar ñu bëgg a jël sama un million rek dem ni dama lay takkal banderole ak bâche ça sert il faut qu'on organise travaille teg des plans de stratégie mm-hmm. ay stratégie yoo xam ne ni ku ci dugal sa xaalis bu subaa nga ñëwaat mm-hmm. comme est am ngeen ambition wu une chaîne de télévision mm-hmm. mais aujourd'hui je pense que ni Bécaye même les chaînes de télévision vont vont ñu ngi daw jëm dans le digital mm-hmm. xam nga télé léegi dootoo jóge ci digital dem ci télévision non déedéet télé yi ñooy dem ci digital parce que boo xoolee télévision meuble la rek ci kër kenn seetaanatu ko léegi mm-hmm. téléphone ci poche télé ci poche moo xew da ngay toog sa kër sa yor sa téléphone di xool émission bi yëpp ñi koy seetaan tey ci télé yi boo defoon les euh, sondage ñi koy seetaan ci seen téléphone moo ëpp wala boo boo demee seen kër tam ci internet bi lañ koy seetaan mais IPTV eh, ñun ñoo war a wax non non non non non may ma tuuti rek ñun ñi sànq ba tey ñu ngi toog waaw d'accord mais la ñaan maa la ñaan bii rek waaw may ko mu ay question léegi Aziz dafa dafa ñëw ci blouson yi mais ba dama am euh, benn question bu mu la bëgg a laaj quoi parce que ñun avant dañu yàgg a gis mbër di sol blouson. Ah. ca jamonoy tigo. Ah. da nga daan gis blouson tigo la ñuy sol blouson hmm. orange ak yeneen ak yeneen takk hmm. banderole. Hmm. kon bon su ma la déggee bu baax est-ce que promoteur yooyu noonu. yi fi nekkoon daan nañ ci gagné. non bien sûr xam nga moment boobu dafa am migration de produits. parce que comme ni mu ko waxee boo du publicité explication la békaay. par exemple dañu jóge Elaw jëm tigo. comme ni ko Babacar waxee la marque a besoin une pénétration dans le marché mmh. changement de nom moo am il est obligé mu créer des blousons brandés wala floqués au logo du sponsor mhm. loolu mooy tax loolu la ñuy doyee ay ay banderole ak blouson loolu c'est pour asseoir la marque mhm. waa ji bu demee ba ñu xam ko leneen nga koy proposer cest dire communication et marketing dafay évoluer en temps doo fi nekk rek naan dinaa la defaral blouson dinaa la defaral face à face mhm. ca sert à rien pour un sponsor il y des sponsors qui vont mettre de l'argent et qui sont prêts à mettre de l'argent dans la lutte il faut nga am foo leen di proposer leen lu proposer leen lu dëgër parce que bu njëkk ni ma la mën a waxee la lutte amatul monopole les sponsors il y a vingt ans derrière y avait pas de série mm-hmm. les séries télévisées yi ngay gis aujourd'hui y a bété bété keneen keneen y keneen keneen mhm. te dans les séries y a des comme ce qu'on appelle en marketing insertion de produits mmh. tu vois qu'on utilise le produit dans les séries kii di naan ndox mi kii di sotti dawlin bi mhm. kii di defar leneen mhm. te lamb ji da nga gis ku ko def da nga demagul kër mbër ba fekk ko muy toggee dawlin j'adore wala <laughs> demoo kër promoteur ba fekk ko amul insertion de produit amul dara waaw bu faram waaw ci sama deuxième question ak rek. Mm. li may ñëwaat doog may buur mu ñëw. démocratie amul ci émission bi. waaw am na ci ba dee am na ci li may li may ñëw li may ñëw deuxième question mooy. <laughs> dama mës a dégg ci communication Aziz mu ne digganteem ak Gaston Mbengue. Mm. digganteem la bu mu fonk. ba tey jii bu fekkoon ne Gaston am na besoin wu cent millions. Mm-hmm. moom mun na jël ci xaalisam jox ko. Oh. mais li ma koy laaj lan moo tax mu mën ci loolu Gaston te mënu ko ci doomu Makan. doy ci doomam makan voilà doy naa bul la question a été posée ici. les relations que j'ai avec ko kenn kuy tëgg làmb fii Sénégal. Gaston c'est man su ma soxla woon cent millions sañ naa dem kër fëgg Gaston këram. ni ko jox ma cent su ma soxla woon milliard sañ naa dem kër Gaston su ma ko fa fekkee maa ko fa bàyyi. relation boobu laa am ak moom c'est fraternel. man bu wul loolu. non xam nga ne man aw ma ci problème wax naa la sànq ni la. Makan bi muy bëgg a organiser Reug Reug Boy Niang jël naa suma téléphone pour expliquer ko la situation ni ko defal ndànk lii ñu lay gëmloo dans ta tête existé wul pour bien faire message baa ngi fii suma. est-ce que mën nañu xaar collaboration Alburax Gaston Production. mais Gaston non euh, Gaston en tant que tel on nous sommes des collaborateurs à vie Gaston je parle damay wax sama wax. Gaston la ñu wax. c'est-à-dire on parle si si si si des deux entités quoi. si Gaston est au devant de la scène en tant que tel. Mmh. moi je suis toujours. prêt prêt à faire mais du ko def ak keneen. est-ce que est-ce que avantage la collaboration promoteur contre avec promoteur vu relation yi amoon entre Albourakh et Luc Nicolas Enco te ñëpp gis nañu fu mu mujj est-ce que boobu amoon na njëriñ. parce que man man wax nan ma ci lu ne parce que man fii laa toog ci télé bi ni Real. ak Barça attends Real ak Barça mënunoo ànd. mais après ñu bëri. ñu xaw a féete ci yéen. danu ma ci mere sax d'ailleurs une audience présidentielle ah, ah. am nañu audience présidentielle. foofu laa bëggoon ñëw Babacar mais malheureusement. parce que bi mu kolo combat Ama Baldé ak Boy Niang eh, combat Ama Baldé. Modou Lo Modou Lo Alburax Tabaatine ñun dañu ànd ak ñoom. ñu collaboré ak Luc Nicolaï dem nañu fi ba gàmbi c'est le président Adama Barrow maanaam teg ay projet dem ci euh, dem ci surtout téléphone yu mag yi nangam nangam nangam nangam mais au finish. ay def rétropédalé reculer bàyyi. depuis bi combat bi jeex gisatul. y' a pas d'évaluation non xam nga tey collaboration du mun a ñàkk. et je pense que combat boobu c' était combat boo xam ne c' est le peuple sénégalais qui l' avait besoin des fois nit ki ci oublie ta personne nga xool lan mooy njariñu réew mi. combat Modou Lo ba Ama Baldé c' est Luc Nicolaï principal et exclusif moo ji dugal alalam moo fay ñaari mbërëm combat bi yàgg na fi am ay jafe lu ñëw na gis ñu ñu waxtaan en tant que gentleman en tant que ñaari sénégalais nous si on peut apporter une solution sur un problème on apporte une solution et on avance comme on l'a fait avec beaucoup de combats. ak Ibrahima Diop. non Ibrahima Diop du benn. Papa Sow ko bu yeggale li may wax nii non c'était pas une coproduction. kon lan mais on ni ñuy waroon a ñëwee ñëwee nañ ko ci li gënoon a am solo mooy collaborer ba combat bi am. Mm-hmm. combat bi am na. joxe nañ ci suñu alal joxe nañ ci suñu doole joxe nañ ci suñu xam-xam. vous avez obtenu gain de cause. non bien sûr parce que c' était Comment? une demande sociale. le mmh. combat Modou Lo Ama Baldé lu ci waaye mënoon def pour mu am am mais c' était Luc Nicolaï l' organisateur mais est li ngeen ci dugal amal nañ leen mais bien sûr. ban des fois c' pas l' qui est important. mais la satisfaction de la population moo gënoon am. ñaata ngeen ci def on a mis on a mis de l' argent. on a mis de l' argent pas important loolu grawul c' est derrière nous y' pas de kon mën nañu wax ne yéen a décanté combat bi. non non non bàyyi liñ liñ ci def daal. yow xam nga ko santir nga ko yëg nga ko. Ah, ah, ah, combat est-ce que est-ce que dinañ mën nañ seen tuwaat. benn collaboration entre mais pourquoi pas. Luc Enco et Albourakh man eh, Aziz comme Aziz Aziz waxal nu fii lu leer. est-ce que mën nañ fee seen tuwaat. Alburaax. ak mais pourquoi pourquoi pas Alburaax est ouvert à toute collaboration saine. <laughs> saine a rentable. saine a pas de problème. ngañ. waaw non mais on remarque que Aziz dafa am ay réserve. waaw dafa am ay réserve dafa am ay réserve. waaw avec des euh, avec les promoteurs. non non surtout ça avec. Ah, avec certains promoteurs bu mujj bi non avec certains promoteurs rek bu ngeen waxee ban turu promoteur ma wax la li tax mënuñu collaborer man je suis. très la non non ah, non a a non bàyyi ah. il ne faut pas personne. le nom de Makan. bu ko personnalisé la structure de Gaston production waaw man li ma wax démb moom laay wax tey Gaston li ma séq ak moom ci àddina makan du ko yëg bàyyi mi bari na lu ma séq ak Gaston loo xam ne sax yëgu ko Gaston relation bi ma am moom moom xam na man xam naa yàlla xam na te loolu du ma ko wax ci télé ak rajo mhm. respect bi ma ko jox moom xam na man xam naa ko Gaston je suis à faire tout pour lui Gaston est mon père sama xarit la suma nit la je vais te dire fii wax naa ko une fois dans les télé comment tu peux nit di tëgg làmb Balla gay booy Niang 130 millions lañ fayoon Balla Gaye c'est c'est une révélation boo bëggee dégg mhm. Balla Gaye ba ba arbitre di siffler contre Boy Niang 20 la jot avance ba ko Boy ñaar ba bi ko Boy ñaar di daan 20 millions la jot avance bi muy sëgg di bëri bi muy sëgg di bëri ba arbitre di yëkkati loxo Boy Niang 20 millions la jot xaalis sur 130 millions ba sànq ba léegi non ah non du ma sànq ba léegi ah xanaa fay nañ ko loolu lan moo ko indi relation te Balla gay manqué wul benn yoon xaalis ci combat bi amu ci problème financier bu li mu ci waroon saraxe saraxe na ko li mu ci waroon ngem boo ngem na ko yàlla mi yor defet yor victoire may ko booy ñaaw ñu félicité ko ci encouragé ci Balla gay yëgu ci benn yoon tolof tolof ci wàllu xaalis. mais est-ce que loolu motivé wul après sa réaction ba ñuy annoncé. le combat euh, Balla Gaye euh, kii. non euh, Balla li ma ci waxoon démb laa ciy wax. Balla Gaye Eumeu Sène taxaw na ci kàddu. taxaw na ci confiance mais mosul taxaw ci xaalis. loolu il faut mu clair. mais bu doon Gaston moo yor les di def su ñëwoon comme nañ ko doon defal. démb ak bërki démb Gaston moom li mu defal Balla gay man defaluma ko Gaston moom première oto Balla gay Gaston ko jënd première këru Balla gay Gaston ko ko jëndal kon relation Gaston dama demoon ba ne ko boo soxlaa Balla gay bu ma wax téléphone su ma nee def signature jarul nga may woo loo bëgg ci Balla gay def ko ak moom parce que Gaston papa la ci Balla Gaye mais loolu confiance moo koy indi te dara du ko dindi li di li am ci ginnaaw yëpp dafa am sabab sabab bi nag su amee la daan am amul jaarul fa doon jaar ñun aussi ay gentleman lañ dañuy taxaw ni stop. mais est-ce qu'on peut dire que yow ak Makan vous êtes des faux frères man daal gis naa ne deuxième round daal man ak Makan nous sommes vous êtes des faux frères ci deuxième round xam bi c'était combat Reug Reug nangam Boy Niang mhm. pour dire vrai il y a pas eu de très bon rapport personnellement mhm. entre Makan Mbengue ak Aziz Ndiaye parce que Aziz n'aime pas la défiance en connaissant la Aziz quand tu le défies eh. <laughs> maanaam il se met en ordre de bataille mais kaay ma wax leen fii Balla Gaye ak Boy Niang bi ñuy bëre boobu mi ngi fekk suñu papa Gaston mi ngi tëdd feebar na mhm. kan moo doon organisé c'est Makan qui organisé nest pas c'est lui qui gérait le combat et qui a fait tout mhm. su fekkoon man aw ma yéene bu rafet mënoon naa ko ni hey ba mu woo ma man ko combat bi avance bi matagul mënoon naa ko yàq combat bi su ma ne woon Balla Gaye sa xaalis matul bul bëre du bëre mm-hmm. mais defuma ko koo xam ne vingt millions la jot sur cent trente nga ko demal bëre ji avec une blessure et tout man ko du ma dégg loolu bëre rek mm-hmm. te jotul woon xaalis fan la xaalis bu mujj mais am y a une partie qui est mais ba léegi am na lu des ce qu'on a convenu am na lu des je le dis haut et fort. am na millions yu des. ba léegi ça reste quinze millions sur cet argent boo xam ni jotu ko ñu ko demandé wuñ ko nit boo ngeen bu fekkee ni yéene woo ko da koy wax message bi ma yónnee reconnaissance de dette que m'a envoyé est dans mon téléphone toujours. te amu ci problème euh, parce que ah, relation bi ma am ak papa ba tey yéen may courir tard quoi eh, non non ci lii la bi loolu xaj na seen eh, digg ma ay mais nee nañ ci combat euh, Kalilou laa ne na ko ci combat Balla Gaye Boy Niang boobu noonu nee na da nga newoon Boy Niang vous avez perdu la bataille mais pas la guerre fan ngeen toll ci loolu gis nga gis nga gis nga làmb yëpp loolu la mbër da lay daan tey suba ngeen war a dajawaat mhm. mooy duñu la ci yàpp gagné la guerre la la la bataille mais pas la guerre mhm. mais Aziz non non non question boobu bu ko répondre noonu parce que on te parle du prochain combat de Balla Gaye contre qui contre Tafatine euh, euh, mm-hmm. mais prochain ba xam nga tey. mais c'est ça. Albourakh est organisateur de combat Balla Gaye Tafatine. mais vous êtes le vous êtes l'agent de Balla Gaye. waaw waaw qu'est-ce que tu attends de moi comme dis-moi donne-moi. Euh, xam nga une question a été posé. c'est-à-dire yéen nii vous avez perdu. non loolu la bataille mais pas la guerre. Boy Niang lay wax waaw non Boy Niang. Boy Niang tak Balla Gaye la wax. waaw ils ont perdu une bataille. par la guerre par la guerre. parce que le le le seen seen seen mbër il reste en compétition. voilà il a une autre euh, compétition. compétition non loolu boobu Balla Gaye sax amul woon ak combat c'est-à-dire perdre un combat ne veut pas dire que tu es foutu ah. tu es foutu il a perdu un combat contre Boy Niang. la préparation de Balla Gaye mais dafa am lu ñu rumandaat. loo xam ne la préparation de Balla Gaye la préparation de Balla Gaye ñëw ci buur ñëwal ci loolu. Ah, man ak euh, alias Sapp